asalaamaaleykum mbokki internet sunu gaal 24 rawatina yéen ñuy suivre sunu émission bi di xalima gu ñëw ñu seet ci tey boroom xam-xam comme ñu koy faral di defee ñu seet ci sëñ Omar Mbacke moom maam Cheikh Anta ñu fekk ko fii ci almadi sëñ Omar ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw jërëjëf inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina mbokki ñu ngi nuyu ñëpp ku ne suuf ak sant di si jiital suñu Mountakha Bassirou di ko ñaanal mu yàgg fi loolu ci wér. di ko ñaanal xalifa maam Cheikh Anta Mbacke moom it di ko ñaanal mu yàgg loolu téwér sëñ Sidi Mbacke incha allah jërëjëf sëñ Omar lan moo waral tey ñu fekk la almadi tey daan la fekk Pikine ñëw fekk si la almadi lan moo waral loolu waaw jërëjëf sëñ bi si laaj bu am solo boobu eh, comme ni ma ko daan waxee si vidéo yu bëri samedi dimanche la ñuy Pikine yéen bis yëpp ñu ngi almadi waaw ñu si ëpp samedi dimanche la ñuy xëy foofu yi bis yëpp ñu ngi Dakar fii incha allah maanaam almadi dañ fiy faj wala waaw almadi dañ fiy faj waaw Mm-hmm. waaye nag ba tey xaw naa wuteeg Pikine mm-hmm. waaw ndax fii mm-hmm. daa xaw alma bi daa xaw a kii moo tax ñu bëgg mbooloo mi di fi daje yéen daje yi moo tax ñu def samedi ak foofu Pikine ñaata nombre la jël almadi par jour bu dee fii suba vingt cinq personnes yi jël ngoo ngi vingt cinq personnes waaw bu dee Pikine nag moom duñ duñ jox kii ku ñëw rek moom incha allah bu ñu gisee ñu faj ko incha allah bu dee fii moom dañuy jël nombre moom ba tey sëñ Omar Mbacke ñu gis ne dëkk bi tey ak ni mu mel. Mm. ñu gis ne Ousmane Sonko. waxoon nga ko ci yenn vidéo ñu gis ne suñ Sonko. am benn ndog-ndog boo xam te ni daf ko dal te waxoon nga ko ci sa yeneen i vidéo. waaw comme ni ma ko waxee woon Ousmane Sonko rek moom bu jug si boppam dëgg daal. Mhm. dana xaw a sonn lool. Mhm. waaw moom faaw ma gën a a jug si boppam kaaraange. Mhm. waaw ndax gàllankoor yi bëri na si moom lool. waaw te wax dëgg yàlla nit ñi bàyyi xel daal moom. Mhm. niñ ko bàyyi xel. Mhm. ndax waxoon nga ne am na lu koy dal ñu gis accident bi am ci loo gisoon la wala luñ la wonoon la. liñ gisoon la ba mu wax ko sax kenn seen njabootam. Mhm. ba ma jot see déggante ak moom. waaw waaye daal na gën a jóg si boppam. xëy na kilifa la duñ toog di mën a wax lépp liñ seq ak moom daal. waaye na gën a jóg si boppam daal incha allah. waaw yàlla baax na. ba tey sëñ Omar dañu gis ne xastante est-ce que mm. sëriñ war dëgg dëgg war na doxale loolu waaw jërëjëf si rajo am solo boobu mm-hmm. lim foofu li mu si tontu mooy fala tohadu man raaytum faahu mm-hmm. yuxuju laa ilaha illallah sëñ bu leen ko noonoo mm-hmm. waaye ñu nañ gën a góor gu baax xam ne ay kilifa lañ waaw wax dëgg te it xamuñ benn sikk si ñu waaye daal nañ gën a góorgóor fexe gën a rafetal liggéey bi ku mel ne suñu maara xamante nañ ku baaxa mhm. waaw suñu xaas na xëy na suñu wat ma miin ko nag moom mhm. waaw kisi di si suñu mbokk la si wàllum pas-pas mhm. kon dañ gën a ko a rafet rafetal daal moo si am solo ndax ñoom ñëpp daanaka benn li nga xam ne dafay ñëw bëgg a tukki bu jëjoo ak sëñ Omar ak ay aajoom dina faju te am na ñenn ñuy wax sax ne yaa ci ay internet bi gis naa ñu koy bind ci say commentaire yu baree baree bare waaw loolu moom macha allah am na lu fi suñu borom def waaw bu dee ku bëgg këyit moom du weesu du weesu weer duñ ko passé ak yow moom lépp li nga bëgg si këyit mu jàppandi loolu moom ñi ñi xam-xam nañ ñu si waaw moom moom macha allah wax dëgg yàlla waaw mooy boroom jëf tuuti jëf lu bari wax tuuti sëñ Omar waaye am na ci foo xam te ni dama fay dugg ak yow mm-hmm. muy jigéen ji nga xam ne dafay sëy mm-hmm. te am doom gis nañ ci tamit commentaire yi ba benn ndaw ma gis ko mu commentaire ci lu mhm. doy waar mhm. jigéen ji sëy ba pare tëw am doom waaw loolu moom makkaan ni ma koy wax rek liñ ci am résultat kenn xamul nu mu toll mhm. ñoo xam ne war si sëriñ si Sénégal ba daj ñii dem si hôpital ba ba dajal ba dem Europe waaye yàlla def na fi lañu am fii lañ jaar ba kii waaw loolu moom Euh, bu dee ku bëgg doom rek bu soob yàlla moom bi duñ si weesu weer te gisa ëmb mm-hmm. waaw moo xam a la gàllankoor wala lu mënti doon daal mm-hmm. wala mu doon tawat si koo xam ne góor ki wala ku jigéen ki mm-hmm. lu si mënti doon daal si du na fi lu fi yàlla def waaw mbokk yi gis ngeen ko noonu ki ñu dalal moom mooy sëñ Omar Mbacke bokk ci sëtu maam Cheikh Anta Mbacke nga xam ne yaakaar naa ne gis ngeen ko ci internet bi muy def liggéeyam boo am solo sëñ Omar yow da nga faral di wax lu bari waaye dañuy tëj ci waxtaan wi rek xam naa ne. Mhm. nga tënkal ñu ci tuuti. Mhm. ci président Macky Sall tey lan nga ko gisal. waaw Macky Sall moom moom li ma ko waxee bëkki dem mooy benn ministre bu fi ñëwoon. Mhm. na gën a jug si boppam moom it. waaw ndax yàq-yàq yi bëri na si moom lool. waaw waaye daal moom na gën a jug si boppam kooku ñoom ay kilifa lañ nag du bëgg wax. comme si di dégg daal. Mhm. waaw loo xam ne sama diggante ak ñoom la. Mhm. du bëgg di wax ñëpp di si kii comme que yàlla def na ay kilifa lañ. Mhm. moo war war a mas Quraan léegi mu gaaw. ñett ngeen. ndax ngeen di ko xale ak ñaata at ngay def si xale bi la gaaw sama nji mi man suñu borom waaw man suñu borom man suñu borom waaw man suñu borom waaw la gaaw man suñu borom waxal man suñu borom waaw man suñu borom la gaaw ñaata lii def amoon ba ñu dikk ak yow ci wàllu faj rab dama gis ne booy faj léegi dangay joxe contrat contrat bi lan la ci. waaw jërëjëf si laaj bi am solo boobu xam nga boo gisee ñuy faj def contrat. Mhm. ñu bëri dañuy dem fu ne mënuñu wér. Mhm. moo tax ku ñëw fii bu ñu waxtaanee ba déggoo dañuy mhm. boo demee euh, date bi ñu jox boo gis boo gisaatee la nga joxe ñu delloo loolu. contrat bi ñaata la. man du ma faj lu ëpp weer. weer man ñetti fan lay faj. ñetti fan ñetti ko wees si faj. moo xam ku am wér di xel la. wala ku rab jàpp ba muy kuy daanoog. faj daal moom si wees si ñetti fan. te it <clears throat> comme ni ma ko waxee rek faj rab képp ku si weesu ñetti fan mënoo faj. dem mhm. am na ko ma faj na 6 mois. Mhm. ñii naa ma ñaari at. Mhm. loolu dañ loolu du yoon faj ku ko mën dëgg-dëgg wër c'est passé ñetti fan man feebar lu mu doy waar doy waar boo ñi ba accès si ba ñu waxtaan ba déggoo ñetti fan ma saafara ko mooy li ci gën a yéeme dafa am seen ndaw soo xam dama ko gis mhm. ñu ne dafa toog ñetti at yoo xam mhm. dugub dugub ci gémmiñam ndox rek lay naan te yaakaar naa ne bi mu ñëwee ci yow omelette la fa njëkk a lekk waaw kooku mi ngi si vidéo yi mhm. moom waajur woon na ma démb rek ne démb waroon togg reer Mhm. kon sant yàlla rek mhm. waaw te ñetti at dem na fu ne mënul wér mhm. yaakaar nañ ko faj bu ma teg ñetti fan si lay yem waaw faj moom moom képp koy def weesu ñetti fan rek jàpp naa ne mënoo waaw ba tey sëñ Omar damay ñëw tamit ci góor gi nga xam ne dafa néew kàttan maanaam néew kàttan ci góor waaw nga xam danga koy faj bu dee néew kàttan moom ñaari fan lañ koy saafara moom bu demee du kiyaat macha allah da nga gën a mën a yëg sa bopp bu baax a baax ñoom ñi da koy waral bëri na waaw waaye daal bu dee ku néew kàttan rek moom bu soob yàlla ñaar li ñuy defal moom ñaari fan nga gis résultat ki nga xam ne néew kàttan bi daf ko judduwaale nag boobu moom mënu si dara mm-hmm. mm-hmm. waaye lépp lépp lu lu dem doomu aadama bu ñëwee mm-hmm. ñaari fan ñetti fan ma saafara la ko moom incha allah ba tey tamit sëñ Omar dafa am loo xam te ni yaakaar naa ne dafay yitteel jamono ji comme sama ubbeeku moom ku bëgg a doon millionnaire maa si gën a gaaw mm-hmm. waaw bu dee ubbeeku moom mm-hmm. ku yàlla def ba ñu toog ba waxtaan mm-hmm. li may defar balaa mat ñetti weer dañu téye ay million moom waaw te it moom it contrat lay ne contrat lay ne boo ñëwee dañu toog waxtaan bu ñu defar bu demee gisoo nga ñëwaat ma delloo sa xaalis mbaa du xanaa dafa xaw a seer tuuti ci wàllu seer na waaw seer na seerul waaw ndax nit léeg-léeg dana bëgg waaye du am waaw ku ne ak bu ñëwee ni ñi kii ak yow rek waaw moom daal yu sëpp sax yu mel du ñu laaj xaalis dañu bàyyi <clears throat> boo ñëwee dañuy waxtaan defara contrat mhm. ñu def ba ba nga gis doog a mën a fay mhm. bu dee yooyu moom loolu lañu koy liggéeyee mhm. waaw ba tey dafa am benn feebar boo xam ne dafa dugg ci société bi te sonal mag ñu bari muy wàllu bët yi nga xam ne dafay metti ci mag waaw bët moom di xesan di jooy bët li koy waral bari na waaw nit mën a am jabet jabet bi yàgg si moom mu def ba nekk cataracte waaw bët moom li koy li koy war a bëri na lu tension yi dana ko waral dem ba indi glaucome semaine bu dee koy xasan la euh, ñu saafara ko insha allah jabet it macha allah am na lu fi suñu borom def loo xam ne ku si suukar kiir bu insha allah bu si jëflantee balaa mat semaine moom it da gis am résultat insha allah waaw mbokk yi tamit ma fàttali ne adresse bi mi ngi almadi ku ko ci bëgg a fekk rek boo ñëwee dinañ leen jox ci suufu écran bi muy sëñ Omar Mbacke samedi ak dimanche nag mi ngi nekk Pikine ci mbedd Afia bi boo wàccee ci cinéma awa bi boo duggee ba ci biir rek foo laajtee kër suñu Omar Mbacke yaakaar naa ne doo réer suñu Omar lan ngay tëjee sa kàddu di leen sant bu baax di rafetlu seen ñëw fii si kër gi seet si ma fii ñu ngi siy kontaan bu baax di gën a mettre sëriñ di leen gën a bàyyi xel si sëriñ si yëngu si liggéey bi nañ gën a góorgóorlu bu baax fexe gën a sàmm ak njub uhuh. waaw ndax njub moom lu mu mayul rek la ndax li ma jot si appel bis bu ne ñu may wax ne yàq nañ lekk nañ seen xaalis si àll bi bëri na lool. waaw te it doomu aadama moom maanaam lépp lool bépp xaalis si jàmbur boo jëlee ëllëg dañ nekk laajaat. kon nañ gën a góorgóorlu baax fexe gën a rafetal liggéey bi.